la yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ña daa xiiru ak mat seen gëñ ya foq nañ sa seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ña daa jabar ña daa xaatim ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu te bul faale ko wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoo te ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw mbaa ci woo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy nda yaa doon Mustafa walaf nee na woote yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaw dootunu dellu wel ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa Cheikh Mustafa gee junganeel waaju ak si duy ku bay xondooj yaa tey wal fa Mustafa ndoxo maa ngi wër Tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi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 كلا أمداي في سائر بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلا مبكي وكوكيك لغاندام ديكر ndeyam ña doon kaañi kankaan ba koleeraam fa mustawa kulo wasra boo dex gaangi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur lee leen fa Mustafa wala yastawil barani asbun sarabo wa milhun ujaajun bul nit Mustafa